gaaw taxawal mi ngi nii kii mooy buuda tuñ yaa ngi nii nopp yaa ngi nii kii la. waaye wuy ma wuy ma taxalee. yow waaye dindi sa poñe sama xaalis yow am nga jaww taxawal dindi sa poñe dindi ma mais dindi poñe ba pare bàyyi ko yow isa xam ki nga poñe yow jëmm laa xam kii mooy buuda maam kii mooy buuda d'accord buuda na nga def loolu nga dama nuyu na nga def ngi ça va di and di lekante comme ay jeun lolou du sa problème na ñëk tay nak na muju tay que ça soit la première et la dernière fois nga fekk ma ma teud nga di ma déranger dégg nga dama ni Ousmane xam na ndax man xam na 2 millions yi ndax xam na ko wala xamu ko pour la ma di ko wax Ousmane wa lolou rek la bëggoon mu leer quoi pour la ma di ko wax c'est parce que sa dara yow daf ma dul leer yow da ngay signaler gauche du droit yow sa bop problème 2 millions bop bu fendé am ak sen yow ya ko sen xamul lan la bëggoon hmm? xaliss bi la koppar ki jox 2 millions yi ma bëgg nga tekku fi sama loxo moo ma jëlee dëkk ba indi ma pour ma lijjanti 2 millions yi loolu laa bëgg yow isa xam nga li ngay def nii lan la ci loi wax yow yow yaa fekke bi may jox 2 millions maa ko yow eh laajuma la ba sama sër sama nga neew ci yow yow yow dama lay defeere defeere ma la nga fa ni dama damaa nekk di waté ay ki yoy bayina ko tëj ma waa baax non <laughs> oui ma sëñ bi sëñ bi xam naa xamoo waaw man procureur la mi may poñé procureur arrêté arrêté nga pour fi tay nga fi mujjé ñew lolu def ko sa bop man may ki la koy wax fi sa tank bu mu fi jaarati ndok parce que amo sutura amo bamélu bir vrai fenkat nga wa jëf jëf jëf génnal nak tibiti ousmane nak dina la ray sa yoon nekku ci na ousmane ray wala mu fess ma and ak ousmane mo gëm may and seytaane bu melna yow yabaate bi bëgg li de lañ naan loo doonul ko mësa doon Thérèse Ndiaye barki démb fii lañ toog man ak moom mu indi jàmm ju mel ni jàmm tey mu bëgg indiwaat buru bi ci kër gi koñ bi ñëpp dañu seetaan waaye jikko borom moom baax rek. moom lii la ñu. jikko borom kii man lay man lay

yow gisal loolu melal ni moom jël naa ko de dugal ko ci poche bu ndaw yi. maa tey eh, déglu déglu kan moo yaaye déglu leen na ngir yàlla may. waaw yow moom sàcc mooy sa mbir. waaw maa tey ay maa tey ma wax eh, ay Thérèse. ngeen dinaa leen yóbbu gendarmerie du ma ci bañ dara. ndax ay sàcc yu mag ngeen. Moustapha Cissé Lo. éliminé Omar man lu may d'accord la te incha allah damay jug léegi loolu sax du loo xam ni dañ koy wàcc man maay jug léegi maa koy def. merci li nga bëgg mission bi nga def. merci loolu soo ko defee euh, wax baax non grand yow duma seetaan sax ñi lay ñi lay taasal. yow fexeel fexeel doxal ma mission boobu gën a gaaw. dans les plus ku la wax dama koy xuri Ndiaye lii du poste bi nga doon wër. ay ay. mën nga ne sa àddina doo tey Thérèse ngay accuser ay nit tey lii bu doon jàmbur la da ngay teg ci yoon te bu la fa yóbboo da ngay am problème Thérèse Ndiaye damaa defe ne yow gàcce du la rey sa jikko ji ñetti fan yi bàmmeel mooy tax mu jeex sa poste tangi noonu. Ousmane. yaa ngi toog. mooy maa ngi nuyu naa Ousmane dama sonn. dama sonn kay. sonn trop. naka village ak coono bi. métti rek métti rek. ah. moom Sénégal moom. jóg ci ay teg wala créer coono ci suñu bopp ndax événement yi di am. dëgg la mais Ousmane man moom bu ñëpp demoon man mënuma woon a ñàkk mën nga maa bàyyi rek ma ñëw jaale parce que ñun loolu lay xam. mais xam nga dem jaale ou loolu amul solo yow ki dee man sama nijaay la te war nga ma ni nga bokkee ak man douleur bi. te jamono yi ñu toll surtout.

booy jaxal sax man nga jaxal ci par téléphone bi est-ce nga pour éviter daje yi toujours day juraat leneen loo xam ne méngoowul ak li nga fi indi budul dara ci diine rek mbas ma la nag boo xamante nii mbas mu ne ci réew mii nit ñi daje fee kenn ñëw fa lu dul ni ko proche te ku ñëw da ngay dem mm. man noonu laa ko organiser ba amul bâche amul loolu ku jaalee da ñibbi parce que loolu aussi ñëw ci loo jege jege nit ki après boo ñëwee événement muy bonheur muy bànneex après da nga koy yokkaat ay charge parce que il faut muy dépenser xam nga. Mm-hmm. espace amatul ci kër yi nga bëgg a ñëw dankali ko yooyu il faut ñu am esprit de dépassement yooyu fii ci Sénégal quoi. ah kon loolu xam nga. a sang. sama tante Ndimbe laay seeti nga xam ci lu mu nekk dama faa jël. waaw jël ko mu. maa ngi ma dem ba ñëwee bi nag. ay toogal rek ah. wóo. xanaa gàcce. sama coowul démb li wax dëgg yàlla gàcce gu rëy la ma indil may jàng. Ah, xam nga lii nag dafa neexul nag ay fonk lu góor nga jiim leen jiim lu ne mën nga leen koo jiim ba mu des sàcc waxa waxa wax ba teeral ndaxate yow sama saaga ngi tey loolu nag gàcc moom gàcc gàcc gën na koo gudd ah Thérèse xam nga man duma la awlo ci yoon bu lay gaañ chaque jour dama naan la Thérèse nit dangay tey nit dangay def ndànk man des fois sama néeg bi dara réer ma fi dinaa toog ñaari fan di ko wër di ko wër di ko wër ba gis ko day fekk mu jaxasoo ci bagage yi. mais xam nga accusation dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw te dafa te sàcc moom nit bala nga koo jiin nit war nga koo teg fu leer. Mhm. ndax tey maa abi bu mi tey mag la. mbay tamit bu ko neexoon tey ñun ñoom ñu dem ci yoon. ndax da ngeen a accusé ndax yow mayoo leen dara. ah tey bu doon jàmbur la du ko bàyyi noonu de man maa waxtaan ak ñoom mais bu doon jàmbur la du ñu bàyyi loolu mu jàll. chaque jour Thérèse ma ne la dalal dalal. yow jaale gis naa li nga bokkee ak man du loolu demoo mais ñoo bokk lépp quoi. bu ñëpp doon def noonu nag bon ça va avancer quoi. ki dem moom ñaanul rek moo fi sës fi defal fàttali ak ay li xalaas. góor gi moom liggéey na lu koy di fa c'est vrai c'est vrai wéttal na ma nag wéttal na ma dëgg la moom dalay wéttal moom dalay wéttal vraiment na mais yàlla baax na fi mu jëm yàlla na gënal fi mu rek amiin Ousmane nga ma wéttalee dama laa namm fan yi waay man maa law Ousmane gëj nañ tuub wéet gëj naa la jagi oh. yow petit canin yi ma doon am sax léegi amatuma ko oui oui droit bi dafa bëgg a dagg ko waaw mais xam nga hmm. aussi yow ça veut dire que bëggeel xeetu bëggeel yi ñu bëgg mu am bëggeel yooyu c'est dépassé ko parce que tamit xam nga man kilifa laa yow kilifa tey su ma soo yomboon ci samay bët rek mën naa doxalee neneen quoi est-ce que comprendre amul kilifa amul dara pour man. mais oui c'est que man boo may wax dëgg damay am kersa trop damay ñàkkal damay. kersa laa àttanul quoi. c'est vrai wax nga yow dama xamul fi nga toll si man mais affaire yi ngay profité mariage. toogal. ah nit nag bu fekkee da ngaa nekk ay nit te chaque jour nga tàngal seen xol tamit Thérèse du ma la jay di leen tooñ di leen dëkkal foo xam ne ñu fa di leen solal mbubb moo xam ne du seen mbubb loolu dalay dalay topp ndax àq la. Mhm. man nag li ma bëggoon mooy nga wutal leen cadeau jox leen ko. donte nga jël xaalis sax may leen wala nga jënd lu rafet jox leen te xam naa ngi sax xaalis bi mooy di gënal seen xol sedd ndax nag danga leen di tooñ rek Thérèse te maa abi bu mag la loo wax moom ay jooy la koy faje ndax mag la ñaaw nag loolu baaxul def lay topp. loolu laay def ki tooñ moo mën a baalu ki mu tooñ mu baal ko donte xale donte mag la. Mhm. xam nga senegal moom dañuy def bu nit tooñu ñu ne la waaye baalu ko kii mag la rek mais ki tooñ mooy mooy baalu mhm. ki ñu tooñ di ko baal su ko mënee. kon nag li ma la wax def ko sedd leen seen xol ba seen xol sedd jàmm ñëwaat ci kër gi loolu rek laa lay digal. dinaa ko def dinaa leen neexal. Ah, boo defee loolu moom sama xol sedd gis naa la nag fan di dangaa gené wu yenn yi bu yàggee day ëpp. man nag maa ngi ñëw ni dem sama seet sama tante bi ndax fa yii yëpp wéerul. dem naa te ñëw. waw mbay kaay nga woowaale mbay Diouf waay loo ñu doyee jàmm ak salaam bëgg waxtaan ak di leen ak li xew parce que nag dama leen a tooñ xam naa ni dama leen a tooñ moo tax tey man dama leen di jéggalu ndax man dama war a xoolaat sama bopp ndax yenn yi dama naan sax du neen ndax damay def ba pare doog a réccu te loolu baaxul xam naa ne lii moom ay rab la man moom dama leen di jéggalu rek pour ngeen jéggal ma te xam ne man tooñ naa leen démb yàgg naa leen tooñ waaye bii daa raw bii moom dafa raw. gis nga ma démb laa am lu ma naqare. nu mu fi dugg si ba léegi ñi ma jëñu sacc gis nga yow dofoo dina japp la da nga rew rew dong dong dong dong dong mo la japp yow ku rew nga ha ba para nga ñew fi naan dañu dañu jéggalu dong la japp de dara japp la nak dara sonalu la rew kep kep mo la japp voilà mayu man sama kilifa nga yow do sama man baat man benn affaire laay wax man démb si guddi man naka jekk démb man dama dama bëggoon xaru may naa ma yeewoo ma soog que man ma ne ma ne ma ne ba léegi ki ma wax ki bu ñu xaru du a xaru ne nga dee naa ndax yaa ma ji sàcc nga ma ji parce que këramu yàlla et puis sax man sax tu ma ne sàcc sama xaalis nijaay la sàcc ma la nga jëm ma sàcc baax na dafa loo neex na waaw moo tax may jéggalu ngeen jéggal ma vraiment pour guen kër gi yalla tete do len jéeg jéeg jéeg dimbali len ma rek kay dama woote jàmm pour ñu nekk ci jàmm jéggal len ma ngir ya man kay fi ni damay tuub sax nak jox len ngeen jënd guru wala ngeen jënd ataay ma ngeen jënd lu sedd ngeen nan ko xamna ni mom li bari wul sax nak mais ngeen jël ku nekk 15000 rek 30000 la mi ngi ne 30000 comme mom moy mak mom la koy jox maa ngi. ok ma ah ah danga may koromp yàlla tere damay jéggalu rek. ah danga may jënd léegi. damay tuub rek. ah laaluma soxluma sa xaalis bugguma yaa dégg téel sa xaalis bi man doo ma jënd de xoolal deretu gor mooy daw sama yaram ñoo bokk Buma buma naa la waaye sa xaalis téye ko bu ma bu sa def damay rek pour nga jënd ci lu comme na ngeen koy gënd kay xam lu ko. jaa indi moom la xanaa xamoo ki ñu toon teew ki atee toon teew kookoo dàq tooñ ki doon ko ñu teew maa ko jël. naa ko moom. jox ko 15 minutes naa ko jox. 20 minutes laa koy jox na wàcc rek na wàcc yow koy yow koy jeex na. gis nga man de xam na xam xam na waxuma. man yow moom jégal nga ma. man jégal naa la si xaw bi seddu guy. ah kon baax na yees na ma bàjjal. xaaral xaaral xaaral ma def ko. day tàng daal bay dimbali ma de na ma jéggal de su ma jéggalu di wax na ma mag na. jeex na tàngal xolu mag baaxul nag man nag maa ngi doog a dugg. Marème lan la yow mais man man yàllaa ma indi fii man yàllaa ma dugguloo ci kër gi dama ne woon fii bàyyi naa ko doot ma fi ñëw sama benn gars laa doon seet fii à ma ne xaaral ma jaar fi xool noo toogee xam nga man li nga nduróog Awa Seck suñu sœur boobu décédé rek loolu rek man moo ma jàpp. Omar amoon dara loo may wax gis nga Omar boo xamoon jom sama kër sa sa tàngoor fi Omar lii lépp yow la. yow problème bu ma nekkee rek ci àdduna ak coono bu ma nekkee yow yaa ma ko teg. ci la Omar xola amoo dara looy wax yow ndekete vrai jaam nga. wa yow jaam nga. yàgg nga ma ko wax. amul Omar yow yaa jël Aïda may ko Ousmane. i. lépp yow yaa ko def Omar yow ma jël la def la sama frère def la sama confident Omar nga di ma def yenn yi. yow noo xamee ne Aïda ak Ousmane dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy génn noo noo ko xamee yow. loolu yow yaa ma ko gën a xam xam nga ne Ousmane sama 2 millions yi ma ko joxoon moom lay dem takkee ji Aïda te lépp yow la. ah Marème man mënoo maa jaaxal bul ma jéem a jaaxal gis nga sa jooy yi ngay jooy kenn yóbbeewula ko yow yaa ko yóbbee sa bopp. xaayaan ku deg namanya dama ñew ba sa kër wax la lepp expliquer la kan moy Ousmane ak lan moy intention mais mosoo ma gëm luma la wax nga dem wax xox te yow xam nga fi nga tollu ci man ak bëtt bi ma lay xolé mais maram yow lan la fi la ñew ne la Ousmane bo kërëm di nga fa fekk ben gel koku la bëgg mom la bëgg tak demal nga vérifier loolu nga taxaw fii weddi loolu ni ma loolu musul am jour bi nu jàkkaarloo ma ñëw fii da nga maa dàq ci biti yi ni ma doon nitu dara bëggoo ma te fekk lépp lu ma lu mus a wax man dëgg la sa intérêt la léegi nag sa 2 millions yooyu man ci loolu laay wax parce sa xaalis la yaa ko moom boo ñàkkee fayda nag xool ba Ousmane jël sa 2 millions yooyu dem takkee ko ayda bu boobaa ma xam ni yow perte nga Seyda jàlli carax réer na la. Omar lépp yow la lépp rek yow la parce que yow xam nga ni ma mel ak Ousmane ba pare nga jëkkati ko may ko Aïda te yow xamoo Aïda Aïda sama sama sœur la man ak magam bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd yéen ñëpp a yam muy Ousmane waxaguma sax ay waxam mais yéen ñëpp a yéen ñëpp ay vrai jaam la. Mariam. man war nga ma baña taxé comme jam parce que lawa dal la wax nga koy wéddi tay loolu mo feñ mo indi sa rongañ yi mais nak bu fekké ni yow fof nga taxawé ba dima jappé jam grawul amul problème man sama jaan wacc na deug la bëggon nga dégg ko te dégg nga dëgg sa 2 millions nak yow ya ko mom ya ko liggéey lima la waxon la lay waxat xolal noy fexé noo koy fexe récupérer bo nak ba Ousmane Kane jël 2 millions yoy dem také ko Aida moy perte nga sama wax bu muju mooy sama wax mooy wax boobu man maa ngi dem sama. dama sama kër nag bu fi sa tànk jaarate yéen ñëpp a yem